asalaamaaleykum mbokk ñu seetaan ñu dellu nuyuwaat leen gërëm leen sant leen si ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak QTV ak ñi nga xam ne ñu ñoo bàyyi xel si radio bi di téeméer ak ñetta yu toftal ñetta ak ñi nga xam ne saa su nekk ñu ñoo bàyyi xel si social media bi ñu andi leen xibaari dégg bëccëg bi ngeen aara see seen doomu ndey Linguère Baselom si boppi xibaar yi di ngeen di gën a bu ñii di ree ñii di jooy ngir ne nag si bérébu àtteekaay bu mag bi ñoom nag lank ne ne koppar bi nga xam ne nag ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu noonu sa kër député yi wala sa néegi député yi ne koppar bu toll woon nag si juróom fukki million ak ñeneen yu toftal ñeneen ne nag du leen ko mën a jox nag ngir mbéw bala mbir nag àndut ak luwa ba tey si boppi xibaar yi di ngeen dégg vice président bi di uyoo si docteur Aïssatou Touré moom naka bokkoon na si ab jotaay boo xam ne naka ñu ngi ko doon am pour seet naka la ñuy saafaralee naka bu ñëwee si wàllum nawet bi nga xam ne naka dina indi ab yàqute si Banjul ak li ko wóor ba tey lu mujj si boppi xibaar yi di ngeen dégg ñetti kilifa ñu nga bàyyeekoo sa jàmban jëli ñoom naka teewoon neen sa pencum TRRC di nettali ni leen jàppee woon ak nokkatal bi nga xam ne naka tegoon neen ko seen kaw gannaaw bu ñu lankee ne naka ab booxool naka duñu ko jëlee si pala place am bi nga xam ne nag sampoon neen ko fa si nguur bu fi nekkoon maanaam si nguuri saa Dawda Kairaba Jawara mbokk yi ak yeneen i xibaar si gannaaw bàkk bi lay doon ñu andi si ab yaatal mbokk yi ba tey kon nuñ leen ko junjalee si boppi xibaare bérébu attekaay bu mag bi nga xam ne nag moo nekk si biir réewi Gambia ñoom nag andi neen ab atte di wane ne nag koppari réew bi nga xam ne nag ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu noonu sa néegi député ñu ngi doon ñaax nag pour ñu lebal leen ko dafa mel ne nag booba la mbir nag du antu te ñu gis ne nag toll woon na si loolu nga xam ne nag mooy juróom fukki million ak ñeneent yu tooftal ñeneent bu ñu ko fàttale ko boobu ak léegi nag am na juróomi weer yoo xam ne ñi nga xam ne nag ñooy liggéey foofu noonu sa néegi député yi yi ñoom naka ñu ngi doon ñaax naka ñu lebal leen si koppari réew mi lu tollu si juróom-ñeent fukk ak ñeneenti million yu toftal ñeneent daa mel ni naka bi la mbir ñi nga xam ne ñoo amee wàllum atte gi fii si réew yi Gambie naka atte leen boobu la mbir di leen xamal ne naka koppar boobu noonu amul fenn fu leen koy joxe naka teguwut si luwa bile mbir nag bu ñu ko fàttale ko bu ñu ko àndee nag si néegi député yi am na ñoo xam ne nag ñu nga foofu noonu dañoo àndoon nag si bile mbir nag ne ñoom nag war nañ leen a lebal si koppari réew bi nga xam ne nag jamono yi ñu ngi koy laajte waaye ba tey daa mel ni nag am na si ñoo xam ne nag d'accord woon nag si booba la mbir lii nag tax na ki nga xam ne nag moo amee woon wàllum àtte gi di uyoo si Sénégal jaane nee na koppar bi ñi nga xam ne nag ñooy liggéey si néegi député yi nag duñ leen ko mën a jox ndax mbir bi nag nekkul lu war a am te it luwaa bi waaye ba tey bérébu àttekaay bii di code bi nag ñu ngi leen di xamal ne bépp koppat boo xam ne nag mu ngi si budget bi rawatina nag si atum 2021 bu ko kenn xelaat sa pour génnee ko pour dugal ko nag si boobala mbir maar ñang nag bokko na si ñi nga xam ne nag bés ba ñu ngi doon gaaral ay kàddu moom nag nee na liggéey bu bëri naka la ñu am nag pour def ko si bile mbir ndax saasu su nekk nag ñu ngi doon xamal askan gi waaye tamit di leen woon bile mbir nag bu naroon a antu nan lay demee si biir réewi Gambie waaye ba tey gërëm na taxawaay bi nga xam ne nag béréb bu àtteekaay bi jël neen ko nag si bile mbir nee na nag koppar bi nga xam ne nag dañu koy faral nag di ko génnee si keesi nguur gi war naa doon mbir moo xam ne nag dafay njëriñ réewi Gambie Sey Martin Diaw moom it keroog bés ba na kaddu di wane nag réew mi la ba tax na nag lépp loo xam ngi ko fee def si biir réewi Gambia war naa doon mbir moo xam ne nag luy njëriñ askani réewi la ba tey it na jafe-jafe yi xam ne ñu ngi ko doon jànkuwanteel si bile mbir waaye am na yaakaar ne comme mbir mi na ni ñoom nag dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba gis ne nag def luy njëriñ mi nee na bile mbir boo ko seetloo daa mel ne nag dañuy test loolu nga xam ne nag mooy suñ démocratie waaye am na yaakaar ne nag mbir bi nu demee nag dina njëriñ ñoom ñi nga xam ne nekk si réew mi ak génération bi nga xam ne nag ñoo war a nekk si biir réewi Gambie béréb bu àtteekaay bi ñoom nag li nga xam ne moo leen ñor si bile mbir mooy nag gis nañ ne Gambie nag lu koy yóbbu kanam ñoom nag dinañ si taxaw ba gis ne nag boobu la mbir antu na si biir réew mi mbokk yi ba tey comme ni leen ko junjalee si boppi xibaar yi moom docteur Aïssatou Touré moom nag bokkoon na si ab jotaay boo xam ne nag ngi ko doon am pour gis ne nag réewi Gambia dina leen préparé loo rawatina nag bu ñëwee si wàllum nawet yàqute yi nga xam ne nag dinay faral di am si biir réew mi bu ñu ko seetloo at yi ñu génn nag yàqute yi nga xam ne nag mu ngi doon am si biir réew yi Gambia nag yegg woon na dayoo bi le mbir nag tax na ñoom ñi nga xam ne nag ñooy liggéey si nguur gi lëkkaloo ak yeneen réew ñoom nag ñu ngi toogoon di am ab waxtaan boo xam ne nag ñu ngi ko doon am si jaww ji pour seet nag booba la mbir naka la ñu koy mën a saafaree waaye ba tey it seen bopp ba nga xam ne naka bu nawet bi jotee yàqute yi nga xam ne naka dina daan faral di am booba la tamit ñu gëstu ko ba tey moom docteur Aïssatou Touré mu ngi indi ab leeral si wecceeku jaww bi nga xam ne naka dina day faral di am nee na bi la mbir naka tax ñu am naka li nga xam ne mooy flotte tey doon na ne naka daf dee sonal ñi nga xam ne naka ñoo dëkk si réew mi ak seen koom-koom tey it moom docteur Aïssatou Touré andi na ab leeral bu ñëwee naka si yi nga xam ne naka ñooy driver yi jafe-jafe yi nga xam ne naka dañ koy faral di jànkuwanteel si biir réew mi ngir ndox bi nga xam ne nag dinay faral di fees si yoon bi ba tey moom docteur Aïssatou Touré mu ngi gën di garal ay kàddoom nee na nag nguuri Gambia ñoom nag def neen seen kéemtalaay kàttan pour rek préparer seen bopp rawatina nag si nawet bi nga xam ne nag ñu ngi koy dugg si ba tey moom docteur Aïssatou Touré mu ngi gën di garal kàddoom nag di gërëm ñi ñu xam ne nag si World Bank nga xam ne nag ñoo amee koppari adduna bi waaye ba tey di gërëm ñi nga xam ne nag ñoo European Union si jàppale bi nga xam ne nag ñu ngi koy jàppale nguuri Gambia rawatina nag bu ñëwee si wàllum wécceeku jaww ji nga xam ne nag dinañ koy faral di am waaye ba tey mu ngi gën di garal ay kàddoom moom Aïssatou Touré ne naka gis na ne am na jafe-jafe yoo xam ne naka ñu ngi koy jànkuwanteel waaye booba la mbir yëpp dinañ si indi ab saafara boo xam ne naka dina njëriñ askani réewi Gambie am na yaakaar ne bile mbir naka bu antoo dina njëriñ ñi nga xam ne naka ñoo dëkkee si tund Banjul ak li ko wër mbokk yi ba tey sa pencum TRRC ñetti kilifa nag teewoon nen fa bàyyeekoo sa jàmba njëri di nettali li nga xam ne nag déggoon nen ko seen i kaw si nguuri président Yaya Jammeh bu fi nekkoon gannaaw bu ñu lankee ne nag duñ génnee ab booxool si seen dëkk boobu noonu. ki nga xam ne nag moo leen sampaloon boobu la booxool di force de république bi nga xam ne nag ñoo fi toogoon di Saa Dawda Kairaba Jawara ñetti kilifa yi nag kenn kii di uyoo si Abdoulaye Samba keneen kii Sehu Bayo ak ki nga xam ne nag mooy Lamine Dabo ñoom nag teew neen si pencum TRRC di nettali ki nga xam nag mooy président Yaya Jammeh gannaaw bi nga xam ne nag bëgg na leen a sampal ab booxool waaye nag xamal leen ne booxool boobu nag balaa mu koy sampa faaw ñu génnee booxool bi nga xam ne nag Sir Dawda Kairaba Jawara sampaloon na leen ko daa mel ne nag boobu la mbir nag moo andi woon coow foofu noonu sa jàmbanjeri ba ñu jàppoon ñetti kilifa yi nga xam ne nag ñu nga dëkkee foofu noonu yow sa jàmbanjeeri kilifa yi nga xam ne naka ñoo teewoon sa pencum TRRC ñoom naka ñu ngi nettali boo xool bi nga xam ne naka pare woon ne naka pour jox leen ko sa boobala béréb daa mel ni naka bu Saadawda Kairaba Jawara ba naka moo gënoon ak ñoom foofu bile mbir naka moo taxoon naka ñu weddi ne boobala boo xool naka duñu ko génnee foofu noonu lii naka taxoon na ndaw yi nga xam ne naka ñooy yeewoo foofu noonu si jàmbanjeeri ñoom naka ñu génnoon ne bile mbir naka amul kenn koo xam ne naka dina fa génnee boobala boo taxoon na naka ñi nga xam ne naka ñooy takkader deri dal di dugg foofu nga xam ne naka mooy jàmba njëri jàpp seen kilifa yi ak seen ndaw yi dal di leen teg nag ay métital te it ñu gis ne keroog bis ba naka jàppoon nen lu toll si ñeneen fukki nit yoo xam ne naka ñu ngi yeewoo foofu noonu sa jàmba njëri yóbbu leen naka tegoon leen benn place Abdoulaye Samba moom naka mu ngi nettali si pencum TRRC nga xam ne naka moo amoon foofu noonu sa jàmbanjëli nee na naka gannaaw bu ñu jotee ab xibaar ne naka foofu noonu sa jàmbanjëli am na ay nit yoo xam ne naka ñu nga bëgg a ñëw naka foofu noonu pour daano seeni ko noonu rek kenn ki naka mooy faral di tëgga seen sabar yi pour joxe ab xibaar dal di tëgga sabar bi nag pour dajale nit ñi naka xamal leen li nga xam ne naka moo nar a am foofu noonu sa jàmbanjëli laata ñoo pare naka gis ne ne am na ay nit yoo xam ne naka wàccoon neen foofu noonu naka si jàmbanjëri dal di leen sànni ab tiyaga oustaz bile bi naka taxoon na booba la jamono ñoom ñëpp ñu tasaaroo waaye ba tey mu ngi nettali gannaaw bu ñu tasaaroo yi nag ñi nga xam ne nag ñooy ndawi jàmban jéer yi ñoom nag foroon neen ay xeer di ko sànni ñi nga xam ne nag ñooy takkadeer yi nee na nag bu bile mbir amee ñi nga xam ne nag ñooy takkader yi dañoo dellu gannaaw nag dal di ut ndimbal si seen ñooñ pour nag ñu ñëw jàppale leen foofu noonu sa jàmbañ jéele yi nee na nag ñi nga xam ne nag ñooy takkader yi nga xam ne nag teewoon neen foofu noonu sa jàmbañ jéeli gànnaay yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon jëfandikoo wala fetal yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon jëfandikoo doon na bal boo xam ne nag live bullet la nee na ñenn si ñoom sa den leen doon dóor waaye ba tey it am na si ñoo xam ne naka den leen jàppa yóbbu leen naka tegoon leen benn place nee na naka lu ëpp si ñeneen fukki nit si ñoom naka jàppoon nañ leen yóbbu leen foofu nga xam ne naka mooy Brikama police station gannaaw bu ñu leen fa jëlee naka yóbbu nañ leen foofu nga xam ne naka mooy Kanifing si place yi soddaar yi foofu naka jàppoon nañ leen fa lu tollu si ñetti fan naka boole ko ak ay métital ñetteeli nit bi nga xam ne naka mu fa doon gaaral ay kaddu di uyo naka si Lamin Dabo nettali na li nga xam ne naka moo ko daloon Lamin Dabo nee na moom mi ngi woon si yoon naka naka di dem liggéeyi béréb bi nga xam ne naka moom leen xamee checkpoint moom naka foofu la ñu ko jàppee li nga xam ne naka bàyyi woon na ko xel mooy képp ko xam ne naka yaa ngi ko sa jàmban jëli yow boo eggee si booba la béréb ndax am nga ID card wala amoo ID card sax dañu lay ramas rek yóbbu la ngir rek yaa ngi dëkk foofu noonu sa jàmban jëri ba tey moom nettali na ki nga xam ne naka mooy Lamin Dabo sa pencum tiyaaraas yi nee na naka lu ëpp fan fanweeri ni naka leen ñu jàppoon yóbbu leen foofu nga xam ne naka mooy Kanifing nee na naka si boobala la béréb naka fekkoon na fa ki nga xam ne naka mooy papaam ak ay nit yoo xam ne naka jàppoon neen leen ba tey moom seede bi mu ngi gën di nettali foofu noonu sa pencum TRRC nee na naka yemun ak ñoom si béréb boobu noonu waaye naka yóbbu nañ leen fi nga xam ne naka mooy bérébu àtteekaay bi nee na naka fa waaye ba bi nga xam naka xayma na bés nga xam naka def nañ ko sa mile saytu toll na si ñaar fukki fan ak juróom-benn. ba tey moom seede bi nee na naka bi ñu déggee ne moom président Yaya Jammeh naka mu ngi woon si ab tool foofu noonu sa sifo ñi nga xam ne naka ñooy seen jabar yi ñoom naka defoon neen seen kéemtalaay kattan ba fekk kooku nga xam ne naka mooy Yaya Jammeh si tool boobu noonu di ko ñaan naka pour mu jégal seen i jëkkat yi nga xam ne naka ñu ngi leen jàppoon foofu noonu sa mayeltu nee na naka bi naka bu ko jabar yi defee dafa mel ne naka moom si la président Yaya Jammeh dal di am yërmande si ñoom naka bàyyi leen ñu delluwaat si seen kër yi mbokk yi ba foofu noonu sa kaato ñi nga xam ne nag ñoo amee jën bi maanaam nappkat yi ak ñi nga xam ne sax ñooy seen jigéen yi nga xam ne dañuy faral di jaay loolu nga xam ne nag ñoom nag ñooy ñaax nguur gi ñu ñëw jàppale leen si ay bagages yoo xam ne nag soxla nañ ko pour jëfandikoo ko foofu noonu sa kaato mu doon de boo xam ne nag mu ngi njëriñ askani réewi Gambia foofu noonu nag sa kaatong nag gis nañ ne ëpp doole bi nag dañuy faral nag di dem uti loolu nga xam ne nag mooy jën ak yoxos wala paañ si booba la béréb waaye ba tey ñu gis nga xam ne nag amoon na si weer weeru novembre bu mu amee fukki fan ak benn si 1994 ñu bëri nag dañoo daloon foofu noonu sa Katong ba tey moom Katong mu doon ab booda boo xam ne nag nekk na diggante Gambia ak Sénégal ñu gis ne nag dañuy faral di jël ab gaal pour jëfandikoo géej googu noonu ñi nga xam ne nag ñooy sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñooy Gambien si waaye ba tey foofu noonu sa Katong ñu gis ne nag bu ñëwee si wàllum koppar xaalis bi ne nag moom la sénégalais yi di jëfandikoo ak xaalis bi nga xam ne sax Gambien si moom la ñuy jëfandikoo di leen koy faral nag boobu noonu bu ñu ko seetloo góor yi nag ak jigéen yi nga xam ne nag ñu ngi yewoo foofu noonu sa carton lu ëpp si ñoom nag si boobu la béréb la ñuy dem nag pour daan seen doole gis na nag dinañ am lu leen di njëriñ bu ñëwee nag si wàllum dépense. waaye ba tey ñu bàyyi xel foofu noonu sa carton business bi nga xam ne nag moo fa nekk di gën di dox na si loolu nga xam ne nag mooy wàllum napp jën. comme yeneen prix bi rek dañoo amee yenn jafe-jafe yi ñu ngi koy jànkuwanteel Kartong ñoom it jamono yi nag na ay jafe-jafe yoo xam ne nag ñu ngi koy jànkuwanteel Ablaye Sarr moom nag am nappkat la nee na jamono yi nag li nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel mooy seen mbaar nga xam ne nag ñu ngi koy jëfandikoo si géej gi nag pour jàppee ko ay jën daa mel ni nag borom gaal yu mag yi nag bu ñëwee sa boobala béréb dañ leen dee yóbbul li nga xam ne nag mooy seen mbaal yu ndaw yi te bileen doon na ab jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel ba tax na ñu ngee ñaax ñi nga xam ne nag ñooy kilifa yi nag ñu jàppale leen si boobala mbir wala sax ñu defal leen ab lam boo xam ne nag dafay joxe ab signal ne képp koo xam ne nag dugal na si boobala béréb ak gaalam yu mag yi ñoom nag dinañ xam ne am na ku fa nekk nee na yooyu le lampa na bu ñu ko amee nag si géej bi nag nga xam ne dafay joxe ab signal dina tax ñi nga xam ne nag ñoo amee seen gaale mag yi nag du ñu jege boor boobu noonu. nee na ndaw yi nga xam ne nag ñooy yeewoo foofu noonu sa Kartong ak li ko wër doon ne ndaw yoo xam ne ñu takku leen te yi nag liggéey waaye li nga xam ne nag moom si boo xam ne nag mu ngi bàyyeekoo si loxo ngóor. nee na li nga xam ne naka mu ngi koy ñaax mooy naka ñooy liggéey si nguur naka ñu ut ab bés boo xam ne naka dañoo dem nemmeeku ñoom ñi nga naka ñoo nekk sa Kartong pour gis jafe-jafe yi nga naka ñu koy jànkuwanteel Mari Jiba moom naka jaaykati yoxos la moom it ay kàddoom nee na yi nga xam ne naka ñu ngi koy jànkuwanteel si booba la béréb mooy ñàkk marché bi nga xam ne naka am nen ko nee na seen njaay bi naka dañu koy faral di yóbbu foofu nga xam mooy Brikama it gis ne naka Brikama dafa sori lool ak foofu nga xam ne mooy Kartong ba tey moom Mari mu ngi gën di gaaral ay kàddoom nee na naka amul benn béréb boo xam ne naka dineen fa a di denc seen yoxos yi wala seen paañ yi ba tey moom Mari mu ngi gën di gaaral ay kàddoom nee na naka bu ñëwee si wàllum utam yoxos wala paañ doon na liggéey boo xam ne naka lu lu métti la ndax boo ko seetloo sax seen tànki neen ni naka leen dee duggee si biir géej bi waaye ba tey li nga xam ne sax mooy glof nga xam ne naka mun neen koo aaree seen i yi ba tey amuñu ko nee na at bi ñu génne nag ñaar si ñi nga xam ne nag ñu ngi liggéey ak ñoom nag ngi duggoon si seen gaal yu ndaw yooyu noonu nag di uti loolu nga xam ne nag mooy yoxoos waaye nag dafa mel ni si boobala béréb nag amoon neen fa accident gaal gi nag dal di koppu waaye nag amul dara loo xam ne nag mën na leen a aar si boobala jamono ndax amul woon loolu nga xam ne nag mooy life jacket ba mujjee bi sa ñaar yi dañoo mujjee ñàkk seen i bakkan si ndox boobu noonu ne la lu ko gën a yéem si boobala mbir nag kenn ki sa bu muy faatu mu ngi biiroon biiri ñeneenti weer Mbamba Camara moom naka bés bu yàlla sàkka dina àgga foofu noonu naka si carton pour ut nga xam ne naka mooy siyo jën pour seet naka la koy jaayee rek bu na jàppale njabootam ba tey mu ngee nettali si bés bi naka dina enu lu toll naka si fukki si siyo ak juróom nee na naka siyo bu nekk ñu ngi koy fay lu toll si fukki dërëm nee na naka bile mbir naka doon na ay jafe-jafe yoo xam ne naka ñu ngi koy jànkuwanteel ba tax na naka ñu ngee ñaax nguur gi ñu ñëw naka jàppale leen si jafe-jafe xam ne naka ñu ngi koy am foofu noonu sa carton ba tey ba gannaaw bu ñu àggee si ñi nga xam ne naka ñoo amee wàllum lakka jën bi ñoom ñu ngi wax seen jafe-jafe yi nga xam ne naka ñu ngi koy jànkuwanteel amul béréb boo xam ne naka dinañ fa mun di denca jën yi nga xam ne naka ñu ngi faral di lakka te it bu ëppee benn fa naka dañ koy faral di sànni ngir amun fenn foo xam ne naka foofu la ñuy mun a dencaat jën yi lee waaye ba tey ñu ngi ñaax ndimbal si béréb bi nga xam ne naka foofu la ñoo lakkee jën ne booba la mbir naka soxla neen ku leen ko defaraatal kaatong mu doon ab dikk boo xam ne nag nit ñi diñ leen fay bugga di dem nag di nemmeeku li nga xam ne nag moo am si boobale béréb ndax doon na place boo xam ne nag lu bëri moo nekk foofu noonu sa kaatong waaye ngir feebar coronavirus bi ñu nekk tax na nag kaatong ni mu daan doxee jamono yi nag nekkut di doxee noonu gërëm di leen sant si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a koy ànd ak QTV ak Q Radio rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ñoo bàyyi xel si social media bi ñuy gërëm ñi nga xam ne nag ñoo féete woon si wàllum machine gi ak ñu jàppoon si xibaar yi ba mu sotti ba ëllëg incha allah rabbi si benn waxtu gi jërë ngeen jëf ñu yendoo jaama